mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi baaxoo di ànd ak Tawfekh Production seen sit bu ràññeeku bi di dox ci njàngalem sëriñ bi ak di ko yaatal ñoo ngi fii tey ci Touba Mbacké di waajal bis bu màgg bi nga xam ne mooy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bi bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xëye woon fii ci Mbacké Bari dem liggéeyale ji boromam ci géej gi comme ni mu ko waxee xarajtu yow ma sabti tamina achar li xidmatil muxtaari fi sahri safar waaye nag bis bi ak wàccaay wi danañu dalal borom xam-xam yu mag yi nga xam ne ñoo ne ci yoonu mu rek waaye tey nag ñu dalal ci koo xam ne yaakaar naa bu ñu ko dee présenté dina yomb lool muy Serigne Moustapha saw Sow ah, Serigne Moustapha Salihu Sow buñ ko waxee xel yëpp dina dem ci ah, al allaama borom xam-xam bu màgg bu tedd boobu waaye nag nekkoon it ah, ab jaamukati yàlla nekkoon it ab zahid nekkoon koo xam ne yaakaar naa li mu def ci xam-xam ak ci wisaare njàngalim Serigne Touba ndaw ñi ñu ngi koy jariñoo ba fii ñuy waxee ak yéen di ñaan suñ borom yokk ay leeram te jéggal ko te te gërëm ko te wanale ko ak siddiqiina yi suhada yi ak saalihiina tey nag ñu jàkkaarloog doomam sëñ Saliou sëñ Moustapha Saliou Sow ku ko xam-xam ko ci yaatal xam-xam. ñu taxaw fii ci euh, kanamu jumaa ji di waajal màggal ji sëñ euh, Moustapha euh, Tawfekh Production mu ngi lay nuyu. ah kay sëriñ maa ngi leen siyaare bu baax di leen fayub nuyoo di siyaare mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ngi saytu ak teewlu waxtaan wi ci Tawfekh Production. di leen ñaanal tawféex di am mbégte ak bànneex ci ànd ak yéen ci eh, jotaay bi incha allahu taala. jërëjëf euh, sëriñ bi bi ñu la fayee nuyoo waa sëñ Saliou sëñ Moustapha Salih euh, bisum màggal gii nii solo yim am bari na lool waaye yow tey bu fekkoon ne da ngay jékki-jékki rek jël benn ndax xam naa ne yi war a euh, développé yëpp du xaj ci benn jotaay waaye tey bu fekkoon da ngay jékki jël benn solo ci solo yi màggali ana ban solo rek ngay daal di jowale daal ñu koy leeral. waaw kay jërëjëf sëñ Guédé màggal gi moom ni nga ko waxee daa bari ay njariñ ndax Serigne tubaa dafa waxoon moom Zane Fane bi laa darari moom boroomi njariñ dong la loo xam ne benn lor topp ko màggal gi nag ni ko mu saa ko waxee nee na la yàlla defaloon kalima fii dëhrihi defal ko Ibrahima ba yàlla buur bi faratal tabaski ak tamxarit may na ko gaa yi Mbàkke bu fekkee ne himma wala yitte ji nga xamee ne moom la sëriñ bi nekkoon girug dundam mhm. la ca gën a ñor bokk na ca tawxiidu ummatul islaam benn bennale xeetu lislaam yi ndax sëriñ bi tubaab bi woo nañu ko bis ne ko dañoo bëgg nga wax nu kan ñooy sab taalibee ba mujj nu tere fi bet pour tarixa bu dul sa bos sëriñ bi dana leen bu ngeen xoolee jàkka jee képp ku fay dugg ko génn mooy sama mbokk ci ñoo bokk ñoo bokk tarixa bi kon màggal gi moom man bu ma doon cité di coqati li may génnee mooy taw tawxiidu umatil islam fexe ba xeetu lislaam yépp doon benn te Touba gi dey dem na ba ñëpp war a xam ne war a euh, xool alamul islami bi xam ne Touba dong moo des ci barab boo xam ne mënees na faa régler problème monde bi yëpp ndax barab boo jël am na ñoo xam ne d'accord ñoo ak ñoom mhm. fi mu ne boo jëlee chiites yi mhm. ñoo ko waa Màkka duñ d'accord boo ko doon defee Màkka mhm. chiites yi duñ ñëw boo ko doon defee Yaman waa Màkka duñ dugg am na foo xam ne boo ko fa doon defee ñeneen ñu duñ bokk waaye Touba mooy barab bi nga xamee ne mën nañoo dalal chiites yi mën nañoo dalal waa Makka ndax dalal nañ leen ñëw na fi jamonoy Sëñ Tuubaa sàkku si ndimbal mhm. mën nañoo dalal yéefar bi mën nañoo dalal ku nekk ci finteel yi mooy barki dem bi Cheikh Ahmadou Mountakha demee Ndakaaru ñëw fa di inauguré jumaa ji mhm. gis nga euh, ñooñu bokk ci jeneen diine ñëw di mhm. sàkku si ci moom ñaan ba yàgg naan ko danoo bëgg nga dolli ñu naan ba lii nga def fi nu ñu def ko ndax ñu ngi koy bëgg ñu def référence ci yéen kon Cheikh Amadou Mountakha mooy rassembleur bi ci jamono ji te nekkal fi sëñ Touba bi nga xamee bépp problème u alamul islam yi mënees na ko régler fii ci Touba kon loolu bokk na ci yi nga xamee moom bu ma doon cuqati rek benn teg ko mhm. mën naa jël ne alamul islam bi tawxiid leen defa defaat leen ñuy benn mhm. mën naa amee biir Touba gi ci bokk alamul islam yëpp àndee nangu ko nag mhm. xam ne Touba moom moo des ci refuse boo xam ne mënees na fee dajale jullit ñëpp bi ba l'islam ne danañ bàyyi tafarrox bi am ci diggante diggante ji déggee sëriñ bi euh, ni mu développé wax ne tafaruq bi nga xam ne moo am ci alamul islam yi nit ñi kenn ku ne am ay chiaraat yu bari ñii nekk fee chian yi ñii nekk salafiste yi ñii wahabi yi ku ne ak rek sa xeetu gëm-gëm ba nga gëm te boo jàkkaarloo sa morom ñu la joxoon paaka nga mën koo tër ren di ndax ñun dund nañ ci réew arab yi daanaka lu mel noonu gis nañ ko kon sëriñ bi di xam le ne euh, sëriñ Moustapha ci biir waxam mu ngi wane ne sëriñ Touba kon euh, jumtuwaay la boo xam ne bu ko bi jëfandikoo pratique yi am ci adduna bi yëpp waa sëñ Moustapha sëñ Touba bi mu dem ci géej gi wax na man zanna anni li gayrillaahi murtaxilun aw li siwal Moustapha al Muxtaari fi safari salla alayhi bi taslimin bi chiatihi man kawnuhu li agnaani ani nafari ba àgg ci wallahu yansuruni wal xalqu tatbaxu nii waaw am na foo xam ne it day wax ijaan rujuwon yi ilaa qawmi saadatana baatub al qawmu nga xam ne sëriñ bi day mel ne li mu li woon bi muy dëpp ak moom du jëmmam ji képp moo tax mu di ko wut waaye du ñu ko yaakaar nag alxawmu foofu boo ci doon dégg. Uh-huh. ok jërëjëf uh, sëñ Guédé Serigne Touba moom ni nga ko waxee njëriñu jullit ñëpp la waaw ndax. wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis waaye Cheikh Sidiya nee na uh-huh. innama cheikhu ni'matun an'ama allahu biha ayatu min al ayati uh-huh. kon sëriñ bi sant ko sax dafa war ndax wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis rek tegtal la ca lay la ndax day mel na alxuraan ko digle bu boobaa sëriñ bi nag uh, sëriñ Guédé boo seetloo ni ko fi boromam wàccee. Mhm. mu nekk fi yërmande joo xam ne ñëpp la fi nekkal. Mhm. ndax Serigne Touba boo ko tegee rek jàngat ko professeur Galaye mu ngi koy leeral ci téeram boobu di sabilu salaam. Mhm. bi ma lu ma ci gën a yem dama ne ni nga amee jur a saxal Serigne Touba ne mooy raidu allah unf ci bi yëpp daal di wax ne ñee xëy na dañ leen a privilégié eh. ndax li ñu yor der bu mm. weex. Mm. waaye moom moo ko doon ci. jadaara moo ko doon mm. ci ndax ñi ñu wax ne ñoo fi génnee onf dañ fi doon jëlee onf ba onf jëlee leen fi kon réussiruñ waaye ki fi jëlee woon fa moom ci biir néegam lay wàcceeb liggéey bind xasida xaatimun haajaati teg ci danam dem dëkkaale jeg boromam kon sëriñ bi boo seetloo xaw ma foofu day mel ne uh-huh. daawoo ñëpp ngir ñu jariñu ci nuñ ko mën a déggee ndax Cheikh Abdoulaye Lahad leeraloon na liy diggante xawma ak naasu waaw waaw ak naasu mhm. boo seetloo kon sëriñ bi mhm. woote gi mu woote jëm njëriñ jël njëriñam daal di koy daal di koy joor Sénégal mhm. ndax dafa wax ne walam azal munzu aqaltu taliba maarifatan billahi jalla taiba fa jultu bayna ulama wa awliya bi niyati wa amali wa qawliya kay la a umri itiaba bi husni zannin qaadal ihtisaba hatta saraftu ama ay sachin ila xidmati xayril alamin zil ila waaye dogal na moom mu dimbale ma may ma yoonu géej gi ma dem liggéey ji ko waaye nag dafa wax ne lañ ko ca fayee ah. wa jaala al qur'ana wal islaama wa diatayni lahu wallahu ala ma naqul wakilu loolu nag day leeral xaw ma <laughs> ndax alqur'anu ñëpp a ko bokk ah. alxaw ma alqur'an mhm. wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi basharan wa naziran alqur'an ci la da cay dugg mhm. wal wal islam jullit ñëpp a ko bokk mhm. wadiatayni lahu mhm. ndax sidna Omar dafa wax ne mhm. sidna Ali di moyes dafa wax ne alquran da leen di xabaar la jiitu di leen régler seen problème yi tey di leen régler seen problème ëllëg loolu jullit ak yéefar ci yam kon xaw ma fi mu boo xoolee wal quran wal islam wadiatayni lahu ku ne am nga sa cëb sa cër boo xam ne mën nga koo jële muy tukkim sëñ Tuubaa bi di réussite boo xam ne def na ko di ndamal islam di ndamal der bu ñuul di ndamal waaw kon euh, sëñ Gédé sëñ Touba moom njariñam ah. lépp ñëpp la ñëpp ñëpp ñëpp la coiffé ah, ah. waaye nag rawatina képp koo xam ne da ngaa dëkk Sénégal du ma jërëjëf njëriñam ñëpp la coiffé du ma jeexal nag ci benn euh, interview boo xam ne maa ngi koy def ci borom xam-xam yu mel ne yéen macha allah li ma ci gën a neex na ki yéen mooy at yi bareegul loolu it euh, euh, mbokk yi di ànd ak Tawfekh Production ñu di ko bàyyee xel ay borom xam-xam ñoo xam ne ñii la sëñ Muntaxa Mbàkke soxla sëñ mun ñii ñiila soxla ñii ñooy ñëw euh, fii ñu fekk mag ñi bàyyi woon fi ndono li ñu ñëw tungoom ko aj ko ba ca kaw yokk yitte ji ak himma ji ñu leen di ñaanal bu baax a baax a baax ñu ñu yàgg fi te matal te mottali ci barke Cheikhul Khadim waaye mun Muntaxa dama ne fan yii yëpp du ma laaj kenn wax ak moom bam jeex te du ma du ma ko laaj yi yi mu ci dëkk bi. ñiy màggal si ana ban comportement la ñu war a ñëwee ci Touba. ci ak sàmmonte war may dëkk di wax euh, naan ñi nekk ci école formation yi donc borom école bi day ñëw samp école am tabax ko. yow jàng si sol blouse del ñëw 8h boo tardé waxal li la tax a tardé. boo tawatee sax wax ma indil ma luy wane ne docteur ko bind ne da ngaa tawatoon. Mhm. ndéem borom école bee mel noonu ci école am te xam-xamu àdduna dong la lay sol ëppul fu la sëñ Touba moom. moo tax dëkkam bi ba mu ko sañcee wax na lam fi bëgg jaamu yàlla taxoon ak jàng ak jàngale ba ma koy sañc fekkuma fi lu dul wendi pël ak saawi nag gannaaw ba mu waxee loola it mhm. jógee fi doomam Cheikh Abdoulaye wax ne bakkanam la ci gar waaye la fi boromam bëgg moom faaw dafay am lu fi boromam bañu dafay am ba sëtam ñëw tey di yeesalaat ndigal loola mhm. kon képp koo xam ne yaa ngi ñëw fi barab bii mhm. dafa am saari wax ne bayit boo xam daf koo daanele woo bi didde xee te tamayesul asiyaw ndéem xam nañ ne fii day fu lay jëf kon woo bi didde xee sa safaan ba rek day fu lay bàkkaar kon képp ku fi ñëw war nga fi indi comportement moom la fi boromam bëgg waaye indi fi comportement bu boromam bëgg day mhm. moo ngi mel na nga dem ci école formation lànk ne doo sol blouse ah, ah. lànk ne doo ñëw huit heures ne ngay tardé te noo di indi justification xam nga ne doo fa yàgg wala boo fa yàgg doo fa jël fa indi jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah doo fa yàgg te boo fa yàgg it doo fa jëlee ndam dëkk bi bi ko boromam di sanc jaamu yàlla moo taxoon mu sanc ko mu koy leeral ci ay biir wa diini man biha xat sakana walillazi laha li xayri rakana waxi Serigne Touba la Serigne Moustapha Salihu Sow di borom xam-xam bu tedd macha allah te tabe ci xam-xamam Tawfekh Production mu lay nuyu te di la wax ne la ah màggalug jàmm kullu am wa antum bi alfi xayri jazakumullahu xayra jazaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production ngeen mën a jot a